jërë ngeen jëf mbokk yi xam ngeen ne maa ngi génne fii ci Fnac li ko waral nag mooy bëgg indi rek ay leeral ci li jëm ci album international bi nga xam ne son excellence président Wally Ballago Seck war na ko génne le 6 octobre muy vendredi bii ñu jëm ñu bari nag dañ ma doon woo diggante démb bi may jóge Angleterre ak tey bi may kàddu bari naan ma bi ñu ngi dugg Fnac mais gis nañ na jeex na amatu fa ma bëgg leen indi ay leeral album bi Fnac ak Amazon ak dafa mel ni tey nga ne ñi ngi jaay seede Pikine waaye ñi ngi koy jaay parcelle waaye ñi ngi koy jaay géejawaay géejawaay nag mën naa jeexal te du dee Pikine dana am parcelle am noonu la mbir mi demee fu nag moo jeexal lim précommandé woon ngir ay soppeem def na ko guichet fermé jeex na tàkk mais Cultura dese na ay CD Amazon aussi dese na ay album yoo war a dindi foofu ay CD yoo war a jaay kon nag yow mi nga xam ne yaay soppay président Wally Ballago Seck te bëgg ci album bi Fnac la mu commandé woon jeex na dana ñëwaat fekk jeudi vendredi waaye génnal Fnac gaaw nga jël sa carte nga dem Amazon nga commandé sa CD boo jugee Amazon bu la neexee jaaral Cultura nga commandé sa CD am na it beneen lien bu tudd Neves mi ngi ci lien ki nga xam ne mooy Pascal le le le grand communicateur mais le grand influenceur boo demee ci compte TikTok am wala nga dem ci page Instagram wala ci page bi nga xam ne mooy Instagram am di nga ci fekk nag lien boobu directement la lay yóbbu ca nga war a jëndee album bi kon na gars yi lii moo nekk ay leeral yoo xam ne lu yees fekk en exclusivité mën na woon naa ko leeral sénégalais yi waaye leeral ko Afrique leeral ko monde entier ba ñëpp xam ni album bi du album bee jeex mais Frank la mu jëndoon di ko jaay moo jeex ku dem Amazon di nga jënd sa album ku dem Cultura di nga sa album ku dugg ci lien bi nga xam ne mooy Neves ci Pascal di am sa album. président son excellence Wally Ballago Seck yàlla la fi yàlla bàyyi yàlla yàlla guddal sa fan te wér ak say cër jor de ma dëggën bàyyi dafay sa dëggën bàyyi daagu daagu dëggën bàyyi ku ne Fallou dëggën sama waa gi sama waa gi fekk man waay Mariasin may sa diiga maar gi dem ma nga la mbaay ñii noon njiin njiin soromaareen njiin borom belal ak alxuraan ak naa ñëw oh, mais jaar waaye mais mais dama ne wi jaar ñëw naa day naa monsieur le ministre naa la oh mais mais respect mais Pascal mais Pascal monsieur le ministre est là monsieur ministre monsieur le ministre des transports mbaay waaye moo ànd ak ministre de l'éducation ki nga xam ne tubaarkàlla Faramareen ñi ci féete ndaw te tollaguñu ci atu majeur war a jëm mag ñëpp moom leen président dig ngir mu yar leen kookoy toos mbay géey sunu toos sunu nijaay sunu xarit bi yàlla a jàmbar jàngi oh bi nga ne Thank dëgg la ba tey fan la dëgg la bu mu kan rek moo am fan. mais Pascal. sama xarit fekk na woon. jàmbaar nga de yaa ngi liggéey de. ma xool seet na yow Pascal. yaa ngi liggéey. waaw góor. ci loolu rek waaw. Yes, it's Coucou, bonjour, comment allez-vous J'espère que vous allez bien, je suis Sally, euh, c'est votre soeur congolaise qui est là et je vous fais une petite vidéo afin de vous encourager de précommander l'album de mon père Wally Balagosek. Je vous assure, c'est un homme formidable, un homme bien et je n'ai jamais vu un homme hyper simple, hyper gentil comme lui. Et j'aimerais que nous puissions le, lui encourager en précommandant et en achetant le CD. Et c'est un album et la sortie est le 6 octobre. Salam la famille, salam la famille, c'est Pascal. Alors je fais une courte vidéo pour expliquer aux personnes qui m'appellent depuis ce matin, aux certaines fans qui n'arrivent plus à faire le téléchargement euh, pour la précommande de l'album de Wally Balagosek. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une petite rupture. Normalement, d'ici euh, minuit, euh, les sites vont reprendre. Donc, di ngeen mën a defaat seen précommande si site in euh, incha allah rab donc même au niveau de Fnac, vous pouvez vous déplacer d'ici demain, tout va reprendre à la normale. On fera marraine, on sait, on